Mandaga maa ngi leen di nuyu bëri sama gars yi noonu maa ngi leen di déglu askan wi déglu leen yàqu leen déglu ci benn yoon. waaw sant yàlla rek. Ah. waaw ñu ngi sant bu baax papa lu dugg si Nandi Fall. mbër la mbër la du xanaa mbër la. mais ñu gis nga benn sox sa diggante sa xam bëri si lu rëy na si mbëri lan lañ mën a xaar sa diggante ak Nandi Fall. waaw man li nekk sama kanam laay waaye saa yi saa yi moom. dëgg la dëgg la Nandi Fall la moo si lan lañ si xaar. ñu ngi waajal ànd ak suñu mbokk ñuy sant yàlla bu baax si leen di sant suñu ñaari waajur ñun ay mbër te ñu làmb duñu xar xaar Nandy Fall mbër la yàlla suñu borom may ñu tat incha allah ñu bëre ma daan ko incha allah rabbi est allah rabbi damay màgg bu baax incha allah yàlla yàlla defal ñu jàmm di ko ñaanal ñëpp nag incha allah. da allah rabbi yàlla yàlla def jàmm incha allah jaajëf. waaw la. fay nañ la fay naa leen baax a baax. ginnaaw waaw maa ngi gërëm sama waa koñ. waa Grand zone CEDE maa ngi leen woo si combat si sama diggante mag Papa Boy Djiné ma daan ko seete leneen quoi. Papa du sama adversaire quoi. mais la moo dugal si moom. defar sama carrière moo ma dugal si moom. ak ñàkk adversaire lu ndaw moo ñu boole ma lijjanti ko seete leneen. mais ñu gis ni sa combat yi bëri. ngay jël ay loolu jeex na bii dama dama décidé amul sikki sàkk daan baa seeti leneen. daan baa seeti leneen. waaw amul sikki sàkk. papa waxal. yokk fit nii. papa papa déggoo lim la Cité Production.